borom tubaa nee na sunu borom dimbale na ma genn noy ci sunu noy yi ku jëmul ci yàlla mosul a am